Zidgachor Zidgachor ñoo ngi Linjaan Aziz entrée l'accueil est juste phénoménal même si on doit juste passer pour dem quand même xamante ne avant de revenir à Ziguinchor pour terminer en apothéose Linjan! Linjan! Exceptional! Exceptional! exceptionnel. Ah, Aziz Ayano. Regardez le convoi, la lumière, la pour lumière, il fait de Pelé. Glorieux petit convoi bi la C'est un convoi sur des kilomètres, sur des kilomètres. ñooñu soog a dugg quartier bu tudd Linjaan Linjaan c'est l'entrée des Ziguinchor mais fii dañ fee war a romb rek. dem di ñëw naa soog a dellu si waat à Ziguinchor mais regardez regardez cette foule regardez ces cœurs regardez ce lieu populaire am ku mën na def ku mën England, England, exceptional. Exceptional. Linda, Lingard! Zige Shorela! Zige Shorela! Zige Shorela! Allahu Akbar! Président Bassirou Diomaye Seçin Mareymen. Seçin Mareymen. Jamayangi Nanu. Jamayangi Nanu. Jamayangi Nanu. C'est magnifique. C'est magnifique. رزیدا بسیرو جمال جغر فار مینامو او اکسپشنل اکسپشنل جمال بسیرو مینامو رزیدا بازیرو جمای جگار فای زیگ شوران بیلوسیا زیگ شوران بیلوسیا do, man. entier fidèle au président Ousmane Sonko Diomaye Faye exceptionnel Ziguinchor exceptionnel Ziguinchor Ziguinchor est là lii ma sam lii ma sam ku ma nege see you. exceptionnel, exceptionnel. L'accueil est triomphal. L'accueil est triomphal. L'accueil est mémorable. L'accueil est unique. L'accueil est exceptionnel. Le président Ousmane Soko, Le président Basirou Diomaye Faye. une marée humaine. Président Ousmane Sonko Sigashop Sigashop Oh, le festival de lumière à ah, Ziguinchor Jenna. Step, step. kuna manju mimi turegi marius kanya nyaido asalaamualeykum Ziguinchor seen doom ñibbisi na seen maire ñibbisi na dëkk bi namoon naa waa dëkk bi bu ñu sañoon bëccëg lañ fiy dugg si waaye Ziguinchor mënoon nañ ci bañ a ñëw mënoon nañ ci bañ a teg tànk dañu tee bés ba gën saa gàtt quatre-vingt pour cent dinañ ko fi kam incha masawu may masawu waa Ziguinchor li may masawu waa Sénégal yépp nag waaye dëkk bi dafa am loo xam ne ci li fi jot a xew moo ëpp na ci li nga xam ne concentré na ko ci ay sacrifice kon ma jaale waa Sénégal yépp fépp koo xam ne bakkan rot na ci wala nit gaañu na ci ñu ngi leen di jaale di leen masawu jaale waa Ziguinchor di leen masaw di leen wax nag ni sacrifice yooyu nga xam ne def nañ ko xeex bi yàgg na métti waaye sacrifice yooyu mënul neen ku yàgg muñ ku ne yàlla fekk si la te yàlla nag fekk si nañu ba pare ah une semaine moo ci des incha allah une semaine moo ci des mooy le dimanche 24 le dimanche 24 heure bii maa ngi ànd ak yéen ñu def caravane bi célébrer Diomaye Bassirou Diomaye Faye cinquième président de la République du Sénégal ñu dellu di leen masawu ndax gannaaw li ngeen ñàkk te feneen ak feneen Sénégal ñàkk lu mel waaye dañ leen xañ seen maire ay weeri weeri weer mu am lu ñu sumboon ci liggéey bokk kook yéen ñu xañ leen seen meer ba signature sax juge dafa ko bañal te yeneen maire yu jàppoon yépp ñu ngi leen di permettre ñu signer seen courrier kon dañ leen lor loraat leen waaye ngeen ànd ceeg dignité parce que ku wax Ziguinchor ku wax Casamance wax dignité perseverança. Ela loolu fii la fekk baax kon li taxoon ñuy xeex boobu ba léegi xam leen ni sotti na ba noppi li war a changer Sénégal point de départ am fii la Sidior fii lañ ko toggee fii la lu a tënkoo fii la ñu njëkk a gagné ay élection fii ci Sidior yàlla def muy law law law law ba keneen ak keneen ci Sénégal ñu koy gagné kon waa Ziguinchor sama wax du gudd lu dul kontaan naa trop ci dugg ci dëkk bi kontaan naa trop ci gisee ak yéen mënuma am seen fay mënuma ko am. am seen fay yéen waaye dañ leen ñaan rek parce que ñu ngi xaar aussi à Bignona dañ ñëwoon dañuy continuer dem Bignona doog a ñëw xam nga waa Ziguinchor rek ak seen xër ñu ne kon nañu dugg def boulevard bi ba egg Insa Ndiaye ngeen duggee ñu jël 54 mètres bi continuer dem Bignona taxawaay bu gàtt la yéen waa Ziguinchor dama leen andil sama rakk sama xarit di suñu candidat ñun ñëpp muy Bassirou suñu jaam ne donte nag suñu jaam la waaye léeg buur day xajal jaam parce que du xëccoog moom dara ma andil leen ko leen wax ni ku woteel Bassirou Diomaye dafa mel ni woteel nga ñaari yoon Ousmane Sonko jarul ma koy wax fii sax ndax fii mbokk na ba pare fii combat du fi am wax naa gars yi ni fii ak Bignona ak feneen si mel noonu mënoon nañ fa bañ dem waaye comme yegsi nañu ba fii li ma leen di wax rek mooy ku woteel Diomaye dafa mel ni woteel nga Ousmane Sonko ñaari yoon. yéen ñëpp xam ngeen injustice yi nga xam ne teg nañ ñu ko jaay ñu doole ngeen ànd ak ñun taxaw jàmmaarloog ñoom waaye lii woon seen yitte yëpp. mooy Ousmane Sonko du nek candidat yéen nag yéen ñu yar xam ngeen ni ñun dara feesul suñu bët ñun ci gor lañu yar ci lañuy dund ci lañuy dé candidature c'est pas une fin en soi waye est-ce que injustice yooyu ñu tek bu ngeen ko faj yéen bëgg ngeen ko faj solution baangi ni kon du ma guddal ci wax ji dama leen di jox le candidat Bassirou Diomaye Faye le président de la République à partir du dimanche prochain incha allah bu wax ak yéen ci kàddu yu gàtt ngeen may ñu nag ñu continuer dem di ñu la Tagalagay na walutit

loolu la ñuy ànd ñu jóg yeggal liggéey bi ba bëgg ngeen tàkk leen ñoom ñëpp tous les leaders de la coalition Diomaye président ci présent di nuyu bu baax a a a a leen wax ne li ko président Ousmane Sonko waxee noonu la amee bu doon rek élection bi fii Ziguinchor la kon xam naa ñu bëri retiré nañ seen candidature bu yàgg yàgg yàgg ndax fii combat amu fi Ziguinchor fii combat amu fi Ziguinchor dafa nekk dëkk boo xam ne dafa am particularité ci man ndax bu may def élan ñu war a jël ay stage dem ci région yi dañoo def tirage ma waroon dem Thiès ma ne kenn koo xamante ne dafa defoon tirage pour ñëw Ziguinchor kaa ñu échange ndax dañoo bëgg a dem Ziguinchor ma ñëw fii def ñaari weer ak genn wàll bëggatuma ñibbi Ziguinchor caw na ma Ziguinchor séduire ma man nangu Ziguinchor ak waa Ziguinchor boobu ba tey boobu dañu donc yéen waa Ziguinchor xam ngeen ne Bassirou leen respecté la ndax seen dignité ndax seen taxawaay ndax liggéey ndax bari doomu Ziguinchor kenn du dem mu des gannaaw ma bëggoon rek dem seede gu ci kii nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko di sama mag di sama xarit di koo xamante ne man maa ko soppal sama bopp boo ko xamante xoole ci moom boo ne fi ay jamono gaa yi di wax ne non diggante Diomaye ak Sonko dafa am problème dafa am pro Diomaye pro Sonko may dal xelu sénégalais yëpp pro ak pro Sonko mënul am ndax Diomaye pro bi moo tax lu mu wax démb ci conférence de ku ne dégg na ko.

kon ni ko président Ousmane Sonko waxe woon le 4 janvier 2020 ci anniversaire création Pastef les patriotes ñi nga xamante ne ñu ci beneen côté bi te ñoom ñu ñoo xamante ne ñu am valeur lañu ñu am ñu tànnal leen kenn koo xamante leer na leen leer ne gënul ci senegal bëgguñu ko bu ñu banque seen loxo di seetaan di ko bañ a jàppale nañu rejoindre le camp patriotique

ci seen jom ci sen lépp ci sen fulla sen fayda ma ñew fi gisal ko sama bopp dund ak seen doom gën ko confirmer Ziguinchor mii nak muy région boo xamantene dafa am potentialité bo xamantene kenn mënu ko wax 32 ci ñi nga xamante ne ñooy population Ziguinchor au moins en, entre 18 et 35 ans kon ay ndaw lañu ñemee liggéey am jom ñu former leen mu région boo xamantene le taux d'emploi fi le gën a faible donc le taux de chômage bokk na ci région yoo xamante ne fii la gën a élevé à savoir la deuxième au Sénégal Ziguinchor mooy la région bu ëpp ressource ci Sénégal ay ressources forestières foo xamante ne war nañ fi mën a béy war nañ fi mën a def tourisme gars yi yàgg nañoo jàng am nañ un taux de qualification et de formation bu élevé mu nekk la sixième région la plus pauvre au Sénégal est-ce que loolu normal la bu leen toppee ñoom Ousmane Sonko waxee sëriñ bu ngeen bëggee mu dagg ànd leen ak coalition bi te loolu jarul sax ñu leen koy wax waaye dañ ko fiy waxee rek pour ñeneen ñi nekk biir Sénégal déggee ko ñu xam ne ay projet yu mag lañ am sax ak pour Ziguinchor commencé woon nañ ko avec le président Ousmane Sonko ci programme bu ñu woowe woon buroog muy liggéey ndax nangoo liggéey ñeme liggéey fii la fekk baax te commencé woon nañ ko gisoon nañ ñu ngeen ci jafee noonu lañ ko bëgg a ak yéen au dès soir du 24 mars 2024. ma defal leen nag waa Ziguinchor benn scoop benn information boo xamante ni yéen laa koy jox. élection bi ban jour la mars kon minuit war fekk carte di minuit bu nekkee kon dugg nag le 25 mars. Mengajak teman semua yang konsen Exceptional. Exceptional. اكسبشنال اكسبشنال لما سام كما النجاف كما النجاف بريزيدان عثمان سونكو بريزيدان عثمان سونكو زيكا شورلا زيكا شورلا زيكا شورلا الله اكبر الله اكبر ميكا المستقبل l'IMESAM, UDF Erland Humain, Präsident Ousmane Sonko. Präsident Ousmane Sonko. Crazy John, Nana. Then you accelerate a Gadasby. See, or you took us against your Capinella, Munica, Honorif, Surpidona. Be your now, exceptionnel. j'étais Je t'aime, Je t'aime, Exceptionnel. Oh là là là là là là là là là. Oh là là là là là là là. Allahu Akbar. Exceptionnel. C'est du jamais vu dans l'histoire du Sénégal tout événement confondu, tout événement confondu, toute personnalité confondue, Ousmane, Franco et le seul et l'unique depuis le Sénégal est Sénégal. Nous, y accélérons, nous accélérons, nous accélérons, nous accélérons, nous accélérons, allahu akbar الله أكبر Ziganchor aime son fils. Ziganchor a protégé son fils. Ziganchor, exceptionnel. Exceptionnel. Exceptionnel. Lii ma saam. Lii ma saam. Amul kenn ku ko ma saam ci histoire du Sénégal. Allahu akbar. Exceptionnel. Exceptionnel. Zigachor, aime son fils. Zigachor, aime président. Ousmane Sonko. corps est Azra, son enfant. Ziguinchor aime le Mola de Kergorgi. Ziguinchor le lion de Kergorgi. Il est le roi, l'exceptionnel président Ousmane Sonko. Limassam, Limassam, ça c'est la marche triomphale, c'est la caravane de la liberté. C'est la caravane de la victoire. exceptionnel, exceptionnel. Ces jeunes sont en train de courir derrière la caravane du président Ousmane Sonko depuis bientôt trois heures de temps non-stop. Ils sont heureux. La joie est visible dans l'atmosphère. La joie se fait ressentir. Exceptionnel, exceptionnel Ziguinchor exceptionnel Ziguinchor. Donnez des cœurs à Ziguinchor. Donnez des cœurs à ces Les cœurs pour les jeunes de Ziguinchor. Les cœurs pour Ziguinchor. Ziguinchor adulte son mère. Ziguinchor aime son mère. Ziguinchor aime son fils. Président Ousmane Sonko. Exceptionnel exceptionnel. Je n'ai plus de qualificatif. Allahu Akbar. nous. nous, vous avez vu ces images exceptionnelles d'Yona. on est en train d'augmenter la cadence on accélère complètement pour sortir de ce festival de joie des Chorois. mais nous sommes top topp di daw nous accéléré waaye ñoo ngi de direction Ziguinchor, direction Bignona. On va à Bignona, mais les jeunes refusent. Les jeunes refusent de laisser le convoi s'en aller. Ils courent, ils courent et courent encore pour exprimer cette joie de revoir le fils du terroir, le maire de Ziguinchor, le président Ousmane Sonko la sécurité est en train d'accélérer les convois. Malgré cela, les jeunes continuent de courir de plus belle. Ils sont heureux. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Direction Bignona. Direction Bignona. Si on arrive à sortir de, de ce festival de joie. Voici Voici la caravane qui arrive enfin à s'extirper de ce festival de joie de la jeunesse choroise, de la population de Ziguinchor à l'endroit de son fils, le président Ousmane Sonko. Bignona, on arrive, le temps de recharger les batteries et la voix. On se donne rendez-vous dans quelques instants à Bignona, le fief affectif, le cœur du président Ousmane Sonko, pas bah, bien sûr à Bignona.